Ehm, ab kuréel nag eh, daa daal di juddu jëm ci ñi nga xamante ne ni eh, ñoom daal dañu ne dañ leen a dàkk maanaam licencié eh, ci nguuru jomaay gu yees gile ñoom nag ñoo daal di booloo rek nekk benn tuddee kuréel gi Coli Red nee nañu nag daañu dénoncé mbir yi ndax daal ay victime lañ ñoom ci seen gis-gis sa san sere victime si lan ah dañ leen dàkk ñi ñu leen dàkk ñii ñu dàkk bërki démb hmm. poor ba ba xaaj bi kay di wax social beeg yooyu ah. noonu ak nit ñi jëlee ci ministère yeeg ñoo hmm. ñëpp ñoo booloo doon benn say hmm. ngir rek eh, ñaawlu li nga xamante ne nii daal jàpp nañ ni ñi leen ko teg du ñenn ñu dul gouvernement bu bees hmm. waaw loolu am na solo waaye di si profité waale sax di si massawu ñoom Karim ñi nga xam ne nañ leen xuma bàyyi woon nañ leen am déet Karim eh, xurum xaat waaw ah dañ ko arrêté leen arrêté woon ndax dañoo bindoon benn uh, kii pour bëgg benn ambassade bu fi jógee daal ambassade ba nga xam ne dafa war a ah, jógee. Ukraine waaw waaw pour ñu fa ñu arrêté leen. Mm. moom bàyyi nañ leen am déet. mais kuréel googu nag bu fekkee ni li li nit ñi wax am na moom yaakaar naa ne kuréel googu warut a mën a taxaw. Ah, ndax damay dégg ñenn ci chroniqueurs yi. Mm-hmm. ñoo xamante ni gëstu nañ ay borom xam-xam lañ. Mm-hmm. ñu ni ñi ñi dàq ñu ci ëpp ñenn ñi nekkuñu Dakar ñenn ñi nekkuñu fi ñenn ñi seeni soxna lañ ñenn ñi seen rakki soxna yenn yi ay tur yu insisté wut ko kon ñi mi woo taxaw génne génne taxawal kuréel génne à face di wax si yooyu buñ la daa xeet da ngay mën a négocier pour duggaat wala nga bàyyi mu sedd bu fekkee ni noonu ñu ko waxee ni la mais nag bu fekkee ne ñu daan xëy takk seen i daal sol seen tëli waaj dugg si biir port bi liggéey wàcc dem ñooñu bu fekkee dañ leen a dàq ak beneen société bu ñu xam ne daan nañ sol seeni daal dugg si port bi di liggéey wala ñ dugg si société yooyu di liggéey boobu bu ñu leen dàqee ñu suudewu fexee xool li tax ñu dàq leen ñu delluwaat seeni poste loolu moom ñu leen ko bañal mais nag bu fekkee ne yow jëloon nañu la fa te gis nañu ni mën na am sax xamoo fu bureau ya féete wala boo fa ñëwee weer ba weer nga fay ñëw wala wala wala su boobaa ñuy def la noonu moo xam Dakar dem dikk la moo xam feneen ak feneen moo xam société yëpp nga ko daan dégg. Mm-hmm. ñu ne am na ñoo xam ne dañ leen di jël te liggéey wuñ leen fa. am na ñoo xamante ni ay borom barke lañ am na ñoo xamante ni ay ñii liggéey si télé yi la am na ñoo xam ne liggéey si rajo yi am na ñoo xam ne si waaw non damay dégg laax gars yi di ko wax ah, ñoom ñëpp nag ginnaaw ñoom ña ngi leen di jël te liggéey wuñu fa yàlla na ñu écart am na feneen fu ñu liggéey ñu écarté leen ginnaaw am na fu ñuy xëy di fa mos dara ñi xamante ni nag ña ngay wàcc foofu te bu ñu jógee foofu dañuy toog seméer ñu jël leen ñoom ñu continuer liggéey loolu daal laa si gis nañu xool kuréel gi bu baax saytu ko teg ko si yoon xeex seen ay droit jox hélas alaaji mhm. acca yow la ñuy déglu waa sa neex na waaw xam nga bu fekkente ni dañu ne ñun ñi ñooy ñi nga xam ni ñun lañ dàq dal ne dañuy créer kuréel koo xam ni dañuy fexe loolu li Assane expliqué sànq wax ci ne kuréel gi waruñoo existe ah kay dañ ne la exister dañ ne am na ñuy fayu kon ñiy fayu exister nañ. Mhm. ñiy fayu salaire yi. Ah, maanaam Assane li muy bëgg a expliqué mooy ñi nga xam ne dañ leen di fay te xëyuñu. waaw loolu la bëgg a wax. ñeme nañoo ñeme nañ lu ko raw <laughs> <laughs> ñooñu ñeme fayu. ñu ne la wàccal bi rek ñeme na lu garaw. Ah, ñeme nañ lu garaw. léegi yow boo leen gisee. Ah. parce que bu ñu dañ ne ñi arrêté RTS ñi arrêté Lonase ñi arrêté poste ñi arrêté fële. léegi yow koo ci kii ne kii xàmmewu ma ko post mu ne la maa nga woon Lonase <laughs> koo ci gis ne kii xàmmewu ma ko woon Lonase mu ne la man port laa nekk ko koo ci ne ba gisuma la port bu ne ba RTS laa jóg <laughs> loo ci ba doy alaaji nag port daa rëy de. kuréel gi bu ñu génnoon ñu ne kuréel gi ñooy waa port. alaaji ah. est ce que xam nga may ma ma yeggale ma ma yegg ma yegg c'est bu ñëwoon kuréelu port. Hmm. waa port dinañ mën a xool segg kuréel gi. Ah, daan na ñii bokkuñu ci ñun. Ah, waaye bu fekkente ne bii dañ ñoo jël ñoo xamante ne bii fenn lañ existé wul. Hmm. ku mën a weddi bu kuréel gi taxawee taxaw mbooloo mu taxaw. Hmm. yaa ngi dégg da ngay mën a xam ndax kii boobu koo wax dañ naan noo boo nee non man de ñii xàmmewu ma leen ñu ne non xam naa yow kon waa kii nga gisoon quoi waa poste yi waa kii laykat yi dañoo mën a lay waaw loolu la lay taxaw di la wax sa poor daa rëy non non non non non comprendre li ma la li ma la bëgg a wax mooy mm-hmm. maanaam kuréel googu mm-hmm. boo ñëwee tàllal leen micro dañuy wax ci turu kuréel gi léegi ah, dootuñu wax ci turu kii ne waaw bu ñuy wax dañ naan waaw bu ko defee ñaan waaw mais kii fan la doon liggéeyee port <laughs> léegi da nga naan non xam naa kon nekkut port xam naa kon waa poste la. xam naa kon waa kii la kon ak <laughs> te bu ñuy wax dañuy wax ci turi kuréel googu. maanaam la fait que ñu créé kuréel rek yokku nañ tappale ga. Mhm. Hmm. parce que bu ñu ñëwoon ñi ñu dàqee port rek ñu ne 700 personnes yi nga xam ne bi nee nañ leen toogan leen ñoo génn. Hmm. di nga xam ni kon ñii ñooy waa port léegi ñu bari xam nañ waa port mais léegi bi ñu préféré jaxasee woo jaxasoo. Hmm. doon booba la tappale tàmbali. parce que bu boobaa léegi dootoo mën a tee situer kii kii. ak kii fan la doon ne. waaw donc loolu mooy li nga xam ne mooy dinañ mën a dajaloo. waaw parce que euh, ay kii la ñu woon rek. yoo xamante ni bii buñ ñëwee tamit day nekk kuréel goo xamante ni bii daanaka danga leen di seen waaye gisoo leen. leen waaw parce que pour nga gis leen da xam ne ñii waa port lañ wala waa kii waaye da nga naan kuréel gi rek. ñëw nañ ndox dajee lay doon est bu ñëwee kenn ku nekk mën naa wane kayitam. pancarte <laughs> waaw naan sama kayit a ngi nii man fii laay liggéey yooyu ñi mu am ñi mu. <laughs> Ah, yaa ngi leen di indil ay ndëgg sërëx ah. <laughs> ko def de <laughs> parce yooyu luy leeral la <laughs> ah. lépp loo xamante ni bi moo jëm ci leeral duñ ko wax la leen mm. bu ñëwee dinañ am seen forme de communication parce que tamit bul fàtte ni ñi nga xam ne ñoo téye euh, presse bi ba nëgë ni daanaka genn wàll gi yëpp dañuy xeex nguur mm-hmm. daañu fexe bu ñëwee kuréel gi juddu na di nga gis ñoo xam ne ñoom ñooy taxaw représenté daal de dem ci kii yeeg yooyu wër plateau yi def yenn kii comprendre mais di nga gis ni question yi nga xam ne mooy war dëgg-dëgg duñu yo tem sax ñu teg leen ci plateau yoo xam ne ñaan ndeysaan maanaam yóbbu ay tristesse jël gaa yi def leen ay mos hmm. yooyu yëpp mën naa am ci yëf yi waaw donc euh, loolu la rek mais daal en tout cas li ëpp solo. mooy li ñaan jub jubal jubbanti. jubbanti moom mënta ànd ak euh, booy jubbanti lu dëngoon lool faaw yenn yi am ci. faaw nappaaj aw ci yenn yi moom am ci moom wax dëgg fi yàlla dana metti de. Ah, dana metti ci ñenn ñi noppee day baax. waaye bu noppee rek bu ñëpp mm-hmm. xamee yoon wi ni lii la mooy yoon wi. Mm-hmm. ngi gis nga tey jii boo doon defar tëli bii. Mm-hmm. xam nit ñaa ngi jaar di dem ñëw doonte doonte baaxul. xam nit ñaa ngi dem di ñëw amut problème. mais buñ ko doon defar rek léegi nga gis ñenn ñi daan non vraiment nag ñu ngi déranger quoi vraiment xoolal lii ak lii. fii ñu baar da ngay teggi bay bëgg a dee fii ñu bay bëgg a dee. te fekk na yow dañ lay defaral pour mu baax. Mm-hmm. toba ngi ne la di kaas pikin. seen tëliya te pourtant tëliya bon gi mu bonoon na ñu bari sax daan teggi pikin waaw ñu bari kii léegi ña ngi koy xool di ko léegi fépp a ngi nekk sànce ñu mm-hmm. koy defar mm-hmm. léegi am na ñoo xam ni mbir mi ñu ngi ciy kaas mooy li gaan na wax rek am na ñoo xam ne boo ne fii nañ def mbaar ñoo non non ànduma ci saa parce que lii moom war tane <laughs> nee na bu ñu defee mbaar ba pare woo ko naan non saa yi mbaar mi nag mun toon a ñàkk a loolu loolu loolu la. loolu de jikko Sénégalais. <laughs> loolu jikko Sénégalais yàlla moo ñu ah, ñaale li de. <laughs>